dañu ñëwon tay rek euh, tëj waxtaan wi nga xam ne ñu ngi koy am depuis samedi muy waxtaanu mbirum cet ak mbirum cadre de vie ñu profité won rek ci le 19 septembre bi passé mu doon la journée mondiale du nettoyage alors ñu ne woon euh, dañuy tambal liggéey bi d'abord ci quartier yi parce que lo mën a ci kaw à l'échelle communale bu ko quartier yi jappul def ko seen biir du sotti lolu mo taxone depuis une semaine déjà quartier yépp Bargny organisé un ay atelier Euh, ñu ci gis y a plus de 1200 personnes qui ont participé à nañ atelier samedi nous ubiko avec ak le ministre de l'urbanisme M. Abdou Karim Fafana tey ñu tëj ko euh, liñ ci moi mooy présenté tout à l'heure les conclusions des assises loolu dañ koy décliné ci quartier bu nekk ba noppi ñu am benn comité de suivi boo xamee ne ak quartier bu nous ñu xool lañ fa ak lañ fay def ak naka lañ ko defé lolou amna ci solo ba nous ñu tek ben courriel ba nga xamni ñu ko maison de l'environnement et développement durable mu am ñetti mission mission bi ci moy yar xalé depuis école benen euh, mission bi moy it porter li nga xamni moy mbirum côtière gi avancé sonal na suñu ay avons euh, ñu def ci ay jéego yo xamni amna solo ñu plan pour reloger am na 114 logements yo xamné ne euh, liggéey bi légui mu tambali dañ ko def fi ci Bargny ñu ci gërëm Senelec bi nga xamné ne ñu accompagner leneen li ñu jël ko ci budget commune bi ci deuxième phase bi ñuy ñaan appui état pour euh, yeggali li nga xamné ne relogement bi waminam ak ñi des ci Bargny Géej ñetteelu euh, pogne bi moy reboisement bi ñu def c'est normal il faut ñu am courriel go xamné mo koy porter c'est la maison de l'environnement té gis ngeen ne tay installer nañu benn brigade verte muy cinq personnes yo xamné dañu leen jël pour la pour nous tous les espaces verts de la ville. Ce que nous la campagne de 1300, nous avons fait 2000 parades. En 5 ans, nous avons 2000. Banopi, comme nous l'avons dit, nous avons fait 2000 Mais ce qui est le plus important, c'est que nous avons fait 2000 parades.